mooy Miss Ndiaye Miss Ndiaye da ko koo nëbb dafa jékki-jékki rek ñu ne ko Abdou Aziz Ndiaye day takk jabar tey léegi nag jouru gàmmu gi Miss Ndiaye dafa bañoon ne du dem du gàmmu ji léegi papaam moo woo Moustapha Gueye Mbër Moustapha Gueye Mbër moo dem kër ñoom Miss Ndiaye waxtaan ak moom ne ko sa papa nee na gàmmu gi ku daan mës a ñëw day ñëw lu mu rafet rafet teg fa sa tànk yaa ngi dégg Miss Ndiaye daan ne man Aziz dund naag moom lu ne Aziz da daan guddee di guddee ñëw di ma bàyyi ci kër gi loo ne ñu sequ ko ma sëyal ko sey bu rafet bu demoon ba koy takk ma d'accord ci dina am ma ba cee d'accord dina am mais li gënoon a rafet mooy mu yëgal ma ko maanaam takk gi Miss Ndiaye xamu ci woon dara beneen bi ci tegu mooy Miss Ndiaye bu daan ànd ak Abdou Aziz Ndiaye fële ca Dubaï di def séjour am ndeke en même temps muy nekk Dubaï Aziz Ndiaye tëkkul woon Aïssa Rasul ñing mais ndeke moom Aïssa moom tamit mi ngi Dubaï maanaam mi ngi woon Aziz mi ngi woon ak Aïssa ñing Dubaï nekk ak ki nga xam ne moom mooy jabaram di Miss Ndiaye Dubaay waaw kay nii la kaa bi demee maanaam takk gi Miss Ndiaye xamu ci woon dara léegi nag vidéo yi nga xamante ni Aïssa Rasoul Gningue ak Abdou Aziz Ndiaye doon nañ ko def fële ca Dubaay yaa ngi dégg noonu lañ ko ko envoyé te takk ko woon booba mooy jour bi nga xamante si nii mooy mooy jour yi nga xamante si nii moom day nekk ak Miss Ndiaye Dubaay en même temps nekk ak Aïssa Rasoul Gningue te doonagul jabaram vidéo yooyu ñu daan def dafa jékki-jékki rek Miss Ndiaye mu wàcc ci téléphone lii moo waral coow li xulloo bi lii la ci information bu leer naññ nañ naññ léegi nag dafa tas wala tasul dinaa ñëw ci loolu mais instant bi moom jóge na kër Abdou Aziz Ndiaye mais coow li nii la demee Aziz nag waaw même gàmmu gi gàmmu gi gàmmu gi Aziz dafa joxe benn parti yaa ngi dégg beneen parti mooy loolu léegi nag ba mu déggee ñu naan Aziz maye na fële deux cent millions maye na fële trente millions moo tax mu xaw koo jaaxal Aziz ay sa rasul ñing Aziz Ndiaye cinq millions la ko may trente millions yu du dëgg cinq million la Abdou Aziz Ndiaye alburax may ki nga xamante si nii moom mooy ay sa rasul ñing weesuwu ko waaw Aziz nag am na ay rakkam yoo xamante nii ñi ngi jël yoonu gaal gi te du yoon am na ku nekk ci yoon bi yëg am na ñoo xamante si nii jot nañoo egg ci ay rakk Abdou Aziz Ndiaye waaw léegi nag nii la kaa bi demee wasalaam maa ngi ñëw ci ndaxteloo ak Mario Mbaye